wasala allahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bokk di bokki taalibe yi seetaan ak di ñu diglu di leen siyaare baax di leen jox seen wàccuwaay barabu tedd bi nga xam ni mooy kër jàmbaari islam bi nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci ak mbaax ak bëggam bis bii ka kasaaleka ñu ko ci fàttaliku muy bis boo xam ni bis ëpp ko doole ci yoonu murit bis boo xam mooy bis bu lan bis bu joxe addiya kon kooku mi waxee kooku mooy sëñ Modou Rokhaya mi nga xam ni mooy taawu Cheikh Mouhamadou Mamoun waaye sët bi sëñ Gawane njëkk a gis ci ab sët incha allahu taala kon day mel ni ci am solo bis bi nga xam ne mooy tey la 5 janvier 2019 ñiy def addiya Daaru Salaam nekk ci mbaaramu tedd bi nga xam ne taawam bu tedd bi ngi suñ ginnaaw muy Serigne Cheikh. ànd ko sëriñ Mouhamadou Mamoun Diagne mi nga xam ni sëriñ Mouhamadou Mamoun Diagne mi nga xam ni mooy jëwriñu sëriñ Cheikh ci ngaay yor daara ju di jàng alxuraan ak di yar xale yi waaye yàgg si mu di roqee lool incha allahu taala mu ngi war a àndal jotaay bi incha allahu ci ndigalu sëriñ Fallou Galas mi nga xam ni moo coordonné mbooleem plateau yi ay waxtaan yi nga xam day am ci bis bi ngir wàcce waajal bis bi ci ay bernde yoo xam ne nekk bernde ruux muy jàngalaat mbokk yi fàttaliwaat taalibe yi kër mooy si Mudu Roqeya ak sos gim sos boo xoolee addiye ji nga xam ni euh, nekk na loo xam ni ak principe la ci principe yoonu murit baayam nekkoon ku daan joxe kat addiye bu mag muy si Mudu Maamun di ko jox sëñ Fallou njëkk koo jox un million sëñ Gaawaat nekkoon joxe waa kon boo xam ne ñëpp xam nañ ak ñu mënoon a joxe ay suñu roqee bi mu ñëwee nag moom la gën a yokkaat yëf yi jël bis boo xam bis entier yow mun xaas li jamil hadaya bis boo xam ne bis entier la boo xam ne ngir lan lépp rek mooy lan jéem a joxe addee ngir njukkee ko Serigne Touba mi nga xam ni lu am luñ am rek ak ñoom lu waay am rek rawatina ci Afrique Sénégal ci moom la ko yàlla jaarale te de na ni addiya bokk lii tax nit ñi bëggante bu dee sëriñ ak taalibeem addiya day tax moom sëriñ bi gën a bëgg taalibe waaye taalibe bi gën a bëgg sëriñ bi addiya daa nekk loo xam ne day gën amaat day gën a renforcer waat relation sëriñ bi ak taalibe bi te su mu doon waxee mi nga xam moo ko nag bis boobu woon moom lañuy fàttali incha allah dina ñëw ci njëriñ addiya waaye dañuy jox si mbir jaaj mi nga xam ni mooy jëwriñ yàggal si mudi doo xeeloo ba mu ànd ak sëñ yàlla na yàgg lool mu ñëw indil ñu moom tam ay njàngatam ci bis bi su paree ñu door a ñëw tam incha allah ci wàllu addiyee njëriñ leeg wàccuwaay beeg dayoo beeg Serigne Touba ak ci boo xoolee alxuraan ak hadis kon Baye Mamoun kon kàddu gaa boobu wasalaatu wasalaam ala xaatamil mursalin wa afdalil xalqi ajmahin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jullit yi nuy seetaan yëpp noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baal waq di leen baal aq di dellu di santaat sunu borom tabaraka wa taala ko ci lan ko santan di julli jonte bi sallallahu alayhi di sant Serigne tuuba am nag tey mbegte mu réy moo xam ni noo ngi koy bëggee ci biir diine l'islam muy woote bii nga xam ni tey sunu jëwriñ jii di Serigne Cheikh Anta Mbacké woote na ko te teg ko ci woote ña ko fi jiitu woon ko ci Serigne Gaawaan Cheikh Modou Mamoun ak jëwriñam yi ko fi wutu yëpp ba ci woy juram Cheikh Modou Rokhaya Mbacké muy woote boo xam ne nag ànd na koog waa Darou gépp woote jullit yi ngir ñëw liggéeyal ci Serigne Touba. waaye nag muy ñaari mbir dafa mel ni benn bal la ñuy tiire tey mu jëm ñaari rab benn bi moo di addiya ju ñuy woote ngir liggéeyal ci sëriñ Touba bi ci des moo di fàttaliku gi nga xam ne sii tey moom la ñuy fàttaliku Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké te xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo waxan ni <coughs> dinañ dem ba ci jamono. xooli doomu aadama yi di xumaag di xuur ni weñ di xuure ñu ne ko bu boobaa lan moo koy xaj ba mu weexaat set melaat na mu melan mu ne xanaa di jàng alxuraanul karim ak di fàttali ko mag ñu baax ñi fi bàyyi ko kon tey jii tey la yonent bi xam ne jàng nañ fi mu kaamil yu takkoo takkoo takkoo takku jàng fi ay xasiida di def li istixfaar di salaatu ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa yéene yool bi sëriñ Modou Rokhaya Mbacké léegi kon loolu dana doon loo xam ne ginnaaw yonent bi dañu woon euh, doomu aadama li anna fil jasadi xalbun benn lumb mi ngi ci toom tomb mi ngi ci doomu aadama bu baaxee léppam baax na bu yàqoo léppam yàqu na kon fàttali gu ni fàttaliku sëriñ bi tey dina doon loo xam luy xaccaat xol yi la ngir nu yeesaat weexaat ba sunu xol mën a baaxaat loolu mooy ñaareel bi euh, muy bis boo xam ne nag ni ñu ko wootee woon jullit yëpp ñëw nañu taalibe yëpp ñëw nañu ñi ngi joxe addiya tàmbali nañ ko diiru ñetti fan te fas nañ koy yéene wéyal ba kede guddi gi xaaj kon loolu mooy woote bi ñu ngi ciy sant suñu borom nag di sant ñi wuy si di sant Serigne Cheikh di sant nag Serigne Modou Rokhaya Mbacké mi nga xam ni si moo ci defan ay taxawaay yu mat sëkk te taxawaay yi mu ci taxawan ci soññee addiye yi ci kanam tuuti dina ñëw ci lan mooy njariñeel addiye waaye ginnaaw bu leen nuyoo sant leen kon ñu ngi bàyyee ak sëriñ Balla kàddu gi mu wax leen lan mooy njariñu addiye. jërëjëf sëñ Modou Mamoun kàddu yi am na solo lool te it matale na lool incha allah da nga ñëwaat ci bis bi. nga si mu doqee daan dundee liñ ci fekkee da yàgg nga moom ak sëriñ Cheikh ak it dimension bi nga xam ne si jax yóbbu na fa léegi bis bi ak loo xam ñu ko ciy fàttaliku moom sëñ Modou Rokhaya incha allah loolu bëgg laaj balaa ñu ñëw ci njëriñ addiya bay maa mu sëñ Modou Rokhaya bis bii nga xam ni ci lañ koy fàttaliku te moom moo ko sosoon moom sëñ Modou Rokhaya wax na sëñ Cheikh ne ko lii nii demeen dafa làqu woon waaye ci yéen la ko yàlla jaarale si mud roqiya wana wax sëñ Cheikh wax na ko ay ay nit ñu bare bare ne moom buy wootee addiya si mud roqiya la ci roy daru salaam ba moom ma wax loolu léegi moom lañ koy joxe léegi incha allah mun taxaa ma gisoon loolu ba roy si mud joxe addiya di dajale taalibe yi waxoon ko ne moom lañ ciy roy lu baax loo gis daa am fu koy royee waaye lii moom ci moom lañ koy tey moom lañ jox addiya baay bàyyi bàyyi maamu kon day mel ni si mu roqee yooyu bis bi nga xam ci lañ koy fàttaliku ak haddee ji lañ bëgg nga dikkal ñu incha allahu taala. waaw euh, jërëjëf sëriñ Balla sëriñ Modou Rokhaya moo di taaw maam Cheikh Modou Mamoun Cheikh Modou di taaw maam Cheikh wax nga ko sànq sëriñ Modou Rokhaya Mbacké moom la maam Cheikh Anta jëkk a gis ci sët bu góor mu doon jëmm joo xam ne nag. jàng na alxuraan ba mu mokkal ni ko gaa yu baax yëpp daan mokkale juddoo fu baax nekk laxyaar doon murit saadix doon jaamukatu yàlla yàlla defan ko muy boroom xam-xam bu mat sëkk ndax ba mu jàngee alxuraan ba mu mokkal sëñ Modou sëñ Modou Mamoun Mbacke moo ko yëkkee teg ko ci loxol sëñ Modou Moustapha mu tërbiye ko tarxiya ko boo wàcce ko yebal ko Daaru Salaam dal di wax ni Modou Rokhaya Mbacké de sama njëmbat la ci Daaru Salaam te man de su ma jëmbatan ndee ko noor dana jebbi kon wax sëñ Modou Moustapha Mbacké joojee tey ñëpp teg nañ ci seen bët njëmbatam jebbi na mu daan wax ni nag ab taalibe saa bu nepp fay liggéeyal sëriñ bi te nitul mbaamum sëf kon nag rakkam yëpp ak bàyyam yi fi nekkalan ak taalibe yëpp moo woo leen benn bis dama nu ànd di sëriñ bi bu sëñ bi wootee tombeeg woote ba la ñu joxe ñu def ko ca loole bu fekkee sëñ bi wootewul moom mu woo taalibe yëpp ak mboolem ko ci Darou Salaam dajale addiye dem te ko joxal sëñ Tuubaa boole kooku almet na ko ba maamam defe woon ndax maamam jëkk na yëkki un million boole ko akuk almet jox sëriñ Faliilu Mbàkke mun ko Seydina lii loo ci jublu ni ko ma de tey njëkk gis million mu ne ko almet gi mooy yow yaay Serigne Touba te Serigne moo moonu moom moo moom addiye yi kon bu la neexee nga jëfandiku bu la neexee nga taal ko moo lool tax mu di ci boole almet gi. loola nag ba sëñ moo doxee ñëwee loolal gën a di yeesal ne addee ja doon toll ab lim lay doon boo xam ne paquet almet la ciy boole teg ci loxol Serigne bi bi nga xamee nekk na fi nag. fonk ko lool di ko laaj farlu ci ba benn at mu su at mi nga xam ne si ci la ko mujjee laaje fekk naa ko piir mu ni ma maamun ma ni ko mbakke mu ni ma addiye ji dee ren nangam la waaye déwén de incha allah bëgg naa mu doon nangam yàllaate caat moom la wàcc liggéey yàlla fay na ko yéeneem nag ndax at moom même wàccee liggéey lim ba mu waxan ni moom la bëgg mu mat ko daf ko romb ay yooni yooni yoon la gën a sant nag moo di lim boobee fi bàyyi woon Daaru Salaam gépp doon ko bokk tey jii tey ci biir néegam bi lu ëpp loola ay yoon dana bàyyi ko ci néegam bi dem ci sëñ kon ñu ngi koy sant te xam di jëfam àgg na loolu ñu wax ni sëñ amul tànki ginnaaw tànki kanam la am loolu moom feeñ na ci biir néegam ndax lam doon jëfal sëñ Tuubaa bi mu fi bàyyi ko at mu nekk day yokk di yokk di yokk te te yàlla nay gën a yokk euh, kon ñu ngi ñaan bu baax euh, li nga xam ne si moom la addee di jariñ yàlla defal nu ko defal ko jullit yëpp asalaamaaleykum. gis nañ ni sëñ Modou Rokhaya day mel ni amul màggal rek bu dul bis bii nii. Mhm. lu waral ñu koy màggal ci bis bii nii. waaw lu waral ñu koy màggal ci bis bi Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké. bi mu fi nekkee ba sëñ Modou Rokhaya wàcc sëriñ Cheikh Anta dafa ànd ak njaboot gi dem ca moom ziyaare ko xamal ko ni ko nun de dañ doon laaj ndigal sëñ Modou Rokhaya Mbàkke dafa wàcc liggéey nu doon laaj ndigal nag ban bis lañ ko mën a fàttalikoo sëriñ bi ni tek ba yàgg mu ni ko moom de dafa am bis bu mu tànnalal boppam doon ci liggéeyal sëriñ Touba kon bis boobee nga xam moom la tànnalan ba mu doon ci liggéeyal Serigne Touba bis boobu nañ ko ciy fàttaliku. moo tax bis bi ñuy laaj ëddee ji nga xam ne moom moo ko fàggulan boppam ci bis boobu lan lañu koy ñaanal moo waral ñu ñu koy fàttaliku ci bis bii tey di ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp te te te te yéene boole waale ci way juram ñam fa fekk ak rakam yo ko fa jiitu woon ak rakam yo ko fekkan yëpp suñu borom boole leen dimbal te dolli leen seen seen seen i leer waaw ni moom bokkul ak nee nañu man mii maa la wax ni maa fekk maa fekke ànd ak Serigne Cheikh Anta ak Alaji Serigne Wadd ak Serigne Galas Sile mii nga xam ne sey moo ko coordonné émission bii ñuy waxtaane akub safooram nu ànd dem nuyu sëñ Saliou daal di koy dand fukki mètre toog ne muy waxtaan ak Serigne Cheikh ba àggal sëñ Cheikh dal di nuy woo nu ñëw toog fi wetam sëriñ Cheikh ni ko kii dey mooy galas mi ma fiy yónni ak alay sëñ Wàdd mii doon secrétaire sëñ Modou Mamoun te ànd man tey kii mooy sëñ Mamoun Diagne bi nekk ngaay moo ñoom la ñëw siyaar si la bëgg nga ñaanal leen sunu borom dimbali leen te yokk seeni i sëñ Saliou tàmbali di ñaan ba yàgg mu dagg ñaan gi ni teg daal di yëkki loxoom bu tedd ba yàlla yàlla dool yërmandeem dal di ni waaw Serigne Cheikh mi ngeen àndal di maa ngi leen seedeel ni sama xol sedd na ci moom guy sama xol sedd na ci moom guy sama xol ci moom guy maa ngi koy ñaanal yéen itam maa ngi leen di sant yéen ñi ànd ak moom na ngeen sàkku ngërëmam kon ànd gii nu ànd ak Serigne Cheikh sun ci dox sun diggante ak Serigne Touba waaye amaat nañ ci ndigal Serigne Touba Serigne Saliou doonoon xut bu samaanu jamono ni na ngeen sàkku ngërëmam kon noo ngi sàkku ngërëm moom waaye yal na nun yàlla may ngërëm moom yal na nun yàlla na am ngërëm suñu jaxante ci ndigalal sëñ Saliou Mbacke loolu sëriñ Mouhamadou Mourtala moo ko jëkk a liggéeyloo fii ci Darou Salaam ndaam daf ko ni wan ndaam gi sëriñ Touba ko sancan sëñ Mourtala ba mu ko jëkk yeesalaat taalibe yem fa yebaleen kenn ki noo dëkk muy sëriñ Cheikh Diagne biñ koy yeesalaat am na ku leen fa fekk ni leen sëñ di waxan na ni fii nen naa fi nen yoo xam danaa ko tojtal kon bu ngeen demee ba ànd doomu sëñ ñëw di ko sancaat la sëñ Touba noonu nen naa fi nen danaa ko tojtal si loolu gëm nañu kon gis na ni yéen koy tojtal si sëñ Moutalla yeesalaat foofe amu diir mu woo sëñ Cheikh Anta ko dama bëgg yeesalaat ma ko dañ fee bëgg di def yenn yi yenn yi nag wuutewul sàkku ngërëmbal borom beeg sëriñ Touba bi ko sëñ Cheikh di yeesal di ko yeesal ba def ci loxo yi xaw naa ko wey mu ñëw fa benn bis woolu sëriñ Cheikh sëriñ ak si mu ne ko danoo bëggan sax jàppale la ci di dindi ab lim di ko jox sëriñ Cheikh fa jox ko oto bi mu waran doon de woon suñ moo doxee ne ko def naa ko addiya boole ko lim joxaat ko ni ko bàyyi nu te ñaanal nu rek nu àggale la ko ni ko bëggee sëñ Mourtala ni moom de wax dama ko yërëmoon sax ndax liggéey bi daa mel daa xaw a takku waaye moom de moom dafa am positif lool nun dañ ko doon xalaat jox sax waaye foofu jox nañu lu koowee lan ko nar na jox kon alhamdulilahi rabbil na di relation boo moom la amoon nag sëñ Mouhamadou Mourtada ba benn bis doon nañ fàddigu sëñ Modou Roqee sëñ Mourtala ni ko danaa ci ñëw ba mu ko waxee sax lenn ci jamono boobu mu nii su gëm ndax sëriñ mu tëram mu si koo gis muy dem ay cérémonie waaye keroog biñ toog ba fukki wax toog benn sëriñ bi dañuy jaleñ ànd ak i taalibeem ñëw toog ci digg tant bi ñaan ñaanal jullit yëpp door talaat otoom dem keroog la wax ni sëriñ Mouhamadou Moursala dey waxuma biir senegal de waaye ci biir Touba gi de lañu mas a gis mu ronu fi tant tant sër muy tant sëriñ Cheikh boobee kon relation boobu loolu moom la amoon ak sëñ Anta ba yëkkati doomam jox ko ko am na fi ak njaboot yal na ko yàlla barkeel samp sëriñ Mourtala boobee yàlla na gën a sax yàlla na gën a dekk te ñëpp ñu jariñu ci. waaw relation boobu it. Mm. loolu la amoon nag ñi ko fi mm. wut. ñi ko ci wut. relation boobu day mel ni gis nañ ni El Hadj Baara. waaw El Hadj Baara. Mm. jamono yi mu fi toogee. dafa woo Serigne Cheikh ni ko damaa man benn tookër boo xam ne tookër sëñ Tuubaa la ma bëgg nga defal ma fa kër sëriñ bi tàmbali kër ga di ko liggéey di ko liggéey ba def ci loxo yi kawe na njort bi demee bañ toll ci finition yi ay jekki-jekkalaat Alaaji Baara wàcc sëriñ Cheikh ni tey laa gën a soññi tey laa gën a soññi liggéey fi ma ci nar na yem sax danaa ko weesu ndax sëñ Tuubaa laa doon liggéeyal te sëriñ Tuubaa du fi jóg àggale kër ga cooleet ba mu àgg mu woo taawam sëñ Mamadou Moustapha teg caabi ci loxoom bi sëñ Mamadou Moustapha Mbacke ñëwee fi mu ko dalal ab saalu sëñ Cheikh bi di ay seng mu ni kii de li wax dëgg la ndax liggéeyal na sëñ Touba kër gopp téeméeri million te moom ba léegi ay seng ko tiim kon kii lu wax dëgg la noonu la demee nag si Alaaji Baara Serigne Sidi Maxtaar bi fi nekk lee sëñ Touba di xut bu samaanu jamono bi ko sëñ Cheikh jëkkee siyaare ji daf ko laaj ni ko ana sa way jur ndax sëñ Cheikh way juram fi mu nekk tey ci kaw su mooy xalifa Mbamor Jaara sëñ Sidi Moxtaar yëkkee di ni ko joxal ma ko sa way jur waaye sëñ Cheikh dal di laxasuwaat mel ni musul liggéeyal kenn dara ni dann sëñ Sidi Moxtaar topp ba bâtiment bi ngeen gis tey fii ci bunt ju kër gi kër sëñ Tuubaa gi ci buntu jumaa ji bâtiment Daaru Salaam boobu ngeen di jëkkee ku fa dem na ko xool bala ñoo liggéeyal ci kër gi lu ko romb dana jafe lool ndax bis mu ko joxee ndigal dani kër gi de bëgg naa saa bu àggee ku dugg ci biir xam ni borom kër gii moo yilif jumaay ji nam ko waxe woon nag na la ko defee sept heures ci ngoon lañ tàmbali liggéey ba liggéey ko juróom-ñaari weer bi bâtiment bi àggee biñ ko seetee juróom-ñaari fenêtre nga ca juróom-ñaari climatiseur nga ca salon yi juróom-ñaari salon la biñ koy jébbal juróom-ñaari waxtu ci ngoon la sëñ Sidi Mokhtar wax nañu mooy juróom-ñaari doomeelu sëñ Baara di di juróom-ñaareelu xalifa sëriñ Touba. yokk na jooy muy juróom-ñaari sooro. toog fi juróom-ñaari at. toog juróom-ñaari at ak juróom weer. ak juróom-ñaari weer juróom fan. ak juróom-ñaari fan. at yi kii ko jëkk a joxe fi sama kanam. Ah. juróom-ñaar fukki million la wan. Ah. ak juróom-ñaar fukki junni. Ah. ak juróom-ñaari junni. ak juróom-ñaari téeméer. bañ koy jébbal sept ci ngoon jot na. moo daal di wax ni at ji ngeen fi indi de maa ngi ko doon séentu ci yéen ndax seen seen Sidi Makhtar Cheikh Cheikh Santa moo jëkk ànd ak Serigne Touba ndax ba muy ànd ak Serigne Touba booba yoonu murit amagul. ndax sëñ Sidi Moxtaar moo wax ci boppam ni Maam dafa tollu barab ñu woolu Sëriñ Bamba nee na booba Moodu Mamadou Sall lañ ko daan wooye nee na bi mu agsee fekk yaay way jur maam Cheikh Anta ko ba teg mu ni ko soxna si man ngaa jël bi mu jëlee ruy bay génn ñu delloo bunt bi mu dégg Maam Mor Anta Sali ni ko ah Mamadou salli ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko Mamadou Sall damay bëgg a dem ab dëkk bu sori te dëkk ba ma jëm bëgguma gis lu ma ragal ci yoon wi bëgguma fekkit lu ma ragal fa may fa mu nekk kër ga may dugg bëgg moo koo fekk ci néeg ba ma jëm sëñ Tuubaa ko defal nañ la ko lool fàggul nañ la ko yoon mi nga jëm doo fa gis loo ragal dëkk ba ngay dem doo fa fekk loo ragal kër ga ngay dugg doo fekk loo ragal nee ba nga dugg la nga bëgg rek nga fay fekk bi mu bi mu génnee ca suba soxna si indi waat ruy bi sëñ Tuubaa dajee ak moom ni ko soxna si man ngaa dellu dana nu la woo toogaat ab diir soxna si xam ne am na lu xew ndax ki mu doon indil xéewal gi toog na biir ak siwul maam soxna eh, soxna Anta Ndiaye daal waaxu jubal ci maam Cheikh dafa mu nekk mu ne ko kaay ma wax la sa waajur wii de xóoma ko raw ci ci ci ci kaw suuf xaw ma koo gën a ragal yàlla xaw ma ku ko gën a gëm yàlla xaw ma ko gëm yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xaw ma ko war raw waaye doom ji ji Mamadou Sall kat am na lu ko wax nee na ko bi mu jëmee fi mu jëm bëggul woon bëggul gis lu mu ragal ci yoon wi te dénk na ko ko dénk na ko kër ga mu jëm dénk na ko nee ba mu jëm léegi nag nee na ko itam dénk naa la sa rakk dénk la sa mag yi dénk lañ jaboot gépp loolu la ko maam maam Anta Sali wax kon nag yow li ma lay dénk mooy dalal di gaaw nga dem fi moom ànd ak moom maam daal di nee na wekki lam yi mu takkan ci loxo bi dindi lam yi woon ci tànk bi dem génne mbalaanu cawale ak lëf ci xaalisu ngurdu booba moo am ne ko demal nga ànd ak moom jébbal ko sa bopp boobal maam Seex Anta jébul booba yoonu murit amagul ndax booba sëñ Maam Mor Anta Sali fa mu tëdd jógee gu fa demagul deqale booba yoonu murid amagul kon kooku moo jëkk ñëpp ci Serigne Touba loolee nag sëñ Sidi Moxtaar moo ko wax ci sunu kanam addina bépp di ko dégg kon Serigne Cheikh yàgg naa ànd ak ñooñu waaye nag tuddoo ma sax sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou du bu ma la nee Serigne Cheikh liggéeyal na ko Serigne Abdou Lahad jamono yëpp fi nekkee booba sëñ Cheikh a ngay ca njàng ma benn kilifa bu ñuy wax Maguette moo moom wax ni ma seen gante danoo nekken Dakar nu nekk université moom muy jàng fi kër gi mu nekk waaye noonu li ñuy làkk lay làkk li ñuy bind lay bind li ñuy wax lay wax waaye li ñu jaaxalan ci moom mooy li mu doon foraat lu mu am facette yi lay jariñoo waaye kayit yow suñ bàyyi ba la ko yónnee ca Daaru Salaam te boo bàyyi ba loo ko jox mu jox ko sa yëblaat kon liggéey ba ma nga tàmbali sa Abdul Ahad Baye Mamoun day mel nii. sat nañ baax baax ñu ngi naan ma ñaari minute moo ci des. Mm-hmm. li am solo mooy sat nañ baax baax baax te gis nañ ni yëf am na aal. Mm-hmm. ay si mu doxee kum yar. Mm-hmm. nga mandee ci moom. ànd ak moom di ko ak Sëñ Tuubaa ñi faaw rek loolu am ci yow. ñu ngi sant baax di la gërëm. kon sëñ Cheikh day day faddu nekk jaamiya. daa dajale si biir woqee amoon. amaat yi fi boppam boo xoolee. loolu nag mooy. ku wut sa baay dëgg nag mhm. fexe ba fam yemoon nga yokkaat ci loo xam gën na koo taaral mhm. yokkul wàññi nga waaye woon ngaa yokk moom mhm. yéen ñu ànd ak moom gasaleeka tey jii ngeen gën a xam ni yi fi gën naa yokkaat te boo xoolee jataay bii ak ni mel nii ñëpp toog suba ba te di ko xaar ngi lan addiyee yoo xam maa ma bàyyi ma ko sosoon ko day mel ni jeex gën naa yokkaat yi fi waaye ñi gën nañ koo joxaat maanaam gëdd joxaat ko cër tali bi ñëpp àndaat ak moom kon nañ ñaan yàlla ñu ko fi yàggal baax yow mi nga xam ne rek jëru nga ci moom ci zahir ak ci baatin ndax alxuraan yaa ngi koy taxaw ci sëñ mu roqee yaa ngi taxaw ci daayira yi yaa ngi njëkk indi si addiya bëkki dem ak ànd ak waa ngaay so day mel ni yow itam day ñaan yàlla di la dëgëral baax a baax a baax a baax ba yéene ji si Seex am ci addiya ji yëpp ànd koo yow ak sëñ Tuubaa kon day mel ni Baye Mamoun euh, émission bi am na solo lool ñun ndax lañ bëggoon wax dañ ko far bàyyi yow ndax wax ju am solo ji ak it mag boo teew ak ak moom fekkee démb tey ak tey nga tataan ci moom waaye ñii déglu ñëpp kontaan nañ ci njeex daal li am solo mooy incha allah li waxoon ne ku gërëm gërëm naa ndax gërëm naa waxoon leen ko yéen si Mourtala wax ko El Hadj Baar wax ko si Sidi Muxtaar wax ko ba bàyyi la ko ñaari doomam sëñ bi ah suñ ci mur maam yaa yombul de Serigne Touba jox la ñaari doomam bàyyi la la ko ne ci doy suñu Cheikh na ko yàlla defal si Mountakha dégg nga ko li ñu ko ko sa bàyyi laay roy ngi fësee boobu noonu si sax ñaan mooy kuy dégg kàddu gi ak koo xam ni maanaam soppam nga baa ngi taalibe baa nga bëgg seen Tuubaa ba nga ab julit nga ñaanal ñu ko yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak yéeneem ñu ànd ak moom i kasaaleka ak taalibe ñëpp lu ñu mën ren léegi di man lu ko ëpp darage sëñ baa saare waa Lam Fall Sëñ Fall mi nga xam ne ak mboolem sud yi ko jël yëpp yàlla gën a yokk yi fi baax a baax yàlla gën a yokk tawfiix ak sutura yi dafa ñu bëgg sëñ Tuubaa ndax addiyee sëñ Maamun mooy yoon yi sëñ gaawaan daa bokk ci ay may ko yàlla may joxe addiya léegi nag ñëpp ñëwoon nañ ci addiya jooju noonu ñëpp nga koy woote léegi ndax moom mooy yoon yi cër bokk sëñ Tuubaa may muy joxe addiya léegi ñëpp ñëw nañ di ko ci roy si mu roxee mi ngi son bis bi kasalekaat koo feddli te ji ñëpp a ngi ko ci roy ba ci xalif sëñ bi si mun doxaa nee na moom la ciy roy kon day mel ni kon day mel ni xam nañ baax a baax ànd ak mat a la am solo ànd nañoo ko man ana muy sëñ mu di roqee waaye wut na wuuti si wuuti wu rafet a siñu seexante wut na wuuti wu rafet yàlla na yàgg ak moo ki rakkam ak moo ki baayam ak kilifa yëpp waaxi daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamina ba ma am kon defal ñu ñaan taw yàlla tay siir addi